escadre à la radio Safina FM comme tous les samedis à la même heure de 17h à 18h ñuy nuyu ñi nga xamante ne ñoom ñu ñu partout à travers euh, notre cher euh, pays à travers les quatre euh, régions di aussi ñi nga xamante ne moom lañ ci à savoir d'abord abord nous ñu aussi la directrice ak personnel bi nga xamante ne ñoo fi nekk ak aussi ki nga xamantene mo moo ci technique bi bo vraiment katou bi ki gàttu bi jublumaas mën a et ñu koy nuyu bu baax nous aussi ñi en lieu de détention nous leen di ñaanal suñu borom may liberté vraiment bu ñu aussi fi nga xamantene Nous moy seen ñi nga aussi ñu ngi hôpitaux aussi ñu leen di ñaanal di am vraiment et ak invité de marque ba nga il est parmi nous et vraiment muy wuyoo Ibrahima le coordinateur régional de Dakar et fini du mouvement JAD Ibrahim Kondin dina la jox ki kaddu gi nga nuyu ak ñi nga askan bi. bonjour Gueye. bonsoir monsieur Gueye, voilà donc Ma ngi nuyu di ah. voilà di Je ñepp di nuyu mbollem julit bo biir ak euh, ci bitim rew. di ñaanal voilà di leen aussi invitation bi nga ni ngeen mako fii Safina TV. Merci beaucoup, merci beaucoup Ibrahima, le coordinateur régional de Dakar et du mouvement IJAD Union des jeunes avisés pour le développement. Et moi, je fossienne dans l'infinité ici, Safina FM à la même heure, à partir de 17h 18h, économie chez Darnu Dalalak Mais voilà, lolo nonou, de Nuyuat Nika Hamatene aussi, Fofu la Nuyogé, Mouyua Nyartali, et Nyom Ahmed Gay, Nyom Suke Yad, ak Nyom Mam Djaragay, euh, Demad Bo HLM, Fofu aussi, Nyom Ibader, Nyom Ala jigéen ñoom Ablaye Gueye ak ñoom tonton Ndiaye ñoom Seck nan ak ñoom Fatou Fatou Faye madame madame maron ak ñoom Ndeye sek ñëpp ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu baax ak ñoom Ibou ñoom Moussa Sarr ak ñoom maliki malik Diouf ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax di nuyu aussi waa village an hein. waa Koupentoum ñu ngi leen di nuyu bu baax Abdou Sarr ñu ngi lay nuyu bu baax de passage vraiment le coordinateur national du mouvement IJAD ak euh, la jeunesse à travers les 14 régions à travers les 36 villages du de la commune de Niani Toukla ñu ngi leen di nuyu bu baax nous ken aussi bu bambé aussi la village natal aussi ñu aussi ñu ngi leen di baye xel bu baax la famille Guèye ñu ngi leen di baye xel bu baax di nuyu aussi ñoom madame Guèye ak ñep vraiment su ko rek ñu fi ni euh ci fi nga xamantene mom moy euh, sur la chaîne euh, Safina FM et d'y rappeler aussi les nga serveur vocalier 97 396 56 27 77 396 56 27 momoy et euh, euh, numéro de téléphone bi nga xamante ne pour participer à émission bi numéro 77 396 56 27 kon su ko rek ñu ñëw ci li nga moi on dort qui émission bien kon Ibrahima Dar en tant que coordinateur régional de Dakar qui représente vraiment et eh, le coordinateur et, eh, et eh, du mouvement IJAD. Donc, d'abord, ñu lay laaj lan mooy IJAD. Waouh, di leen jaajëfalaat di leen jaajëfalaat bu baax a baax a baax te wax ci IJAD serait un très grand plaisir pour moi parce que IJAD c'est l'union des jeunes avisés pour le développement voilà donc IJAD moy union bi nga xamantene ni mom mo dajale bép jeune bo xamantene ni jàpp nga ne war ngaa mun a jàpp li nga xam si li nga xamante ni moom moo jëmal réew mi kanam. voilà lool moy IJAD. moom mooy IJAD kon IJAD moy l'union des jeunes avisés pour le développement. Mm-hmm. bépp mbopp jeune boo il est conscient à ce que moom itam. Mm-hmm. il a un rôle à jouer vraiment dans notre cher pays kon nous, mm-hmm. ngeen ko li nga xamante mom la apporté à la question posée. et mu donne une réponse bu am solo ndax IJAD cycle la. cycle bi vraiment moom mooy union des jeunes avisés pour le développement légui ma bëggoon la laaj kan moy le coordinateur national du mouvement IJAD. d'accord kan le coordonnateur national du mouvement UZAT répond au nom de Abdou Voilà, au nom de Abdou Il a, il a, en tout cas, mon guide Uzad mettre ko en place euh, en 2019. Voilà, mu nekk loo xamante donc am a booboog na ans. Donc UZAT, c'est pour moi, c'est une très bonne chose parce que ça aide sur beaucoup de choses. parce que tu as dit que le Sénégal dafa soxla woon lu mel pour booster sa jeunesse pour appuyer sa jeunesse nga parce que j'ai l'habitude de le dire réew ndaw moo ko mun a avancé loo et je l'ai dit récemment à à moi sama rencontre ba mujjee am ak euh, ay ñoo xamante ne ñu ma ñu ma jege lañ ma ne leen carrément peut-être am na loo xamante ne ñu ngi koy partager ak yeneen yeneen réew yu bëree bëree bëree bëri muy les ressources ressources yi nag dañoo bëri yaa ngi gis ñun Sénégal par exemple pétrole yeeg liy génn ñu naan nii ak ne loolu yëpp c'est vrai dëgg la mais pour man réew li ko mën a jëmal kanam ressources yi mais ndaw réew ñi parce que ressources yi buñ fa nekkee ndaw ñi defuñ ci li ci war donc ressources yi amul njëriñ moo tax ma ne ndaw réew ñoo ko mën a avancer la donc sur ce point dañuy euh, jaajëfalaat Abdou Sarr bu baax ci li nga xamante ne mooy mouvement UJAD bi nga xamante mettre na ko mettre na ko en en place. merci beaucoup merci beaucoup Ibrahima Dar tant que coordinateur régional du du mouvement UJAD à Dakar mu wax lu am solo mu ne ndaw mooy ressource bi nga xamante ne moom moo gën a moom moo gën a euh, moom la gën a taamu et aussi moom moo gën a doon nécessité ci li nga xamante ne mooy bépp bépp bépp bépp ressource mu don la nga aussi dañ ci appuyer wu rek vraiment revenir vraiment au sujet et sujet bi vraiment ñu don wax ni le mouvement IJAD c'est un volet indispensable pour vraiment le bien-être de la de la population mais avant le nom dañ lay laaj le mouvement euh, IJAD fan mooy siège am ndax am ngeen siège ou pas. siège am mu ngi nekk jàmm gën jàmm gën la waaw siège siège ISAT mu ngi fi nga xamante ah, dans la euh, dans la dans la commune de ñaari Tukulóor. waaw dans la commune de ñaari euh, de à Tambacounda. dans la région de Tambacounda. foofu la siège am mais en ce moment où l'on parle nous pouvons dire que ne est national. est national waaw parce que nous avons des représentants au niveau des 14 régions. Ah, c'est-à-dire que 14 ah régions yépp nekk am na koo xamante ne moo et sur pas mal de communes et de départements yoo xamante ne ñu ngi si biir régions yépp kon loolu yëpp yéen euh, en cinq ans ngeen ngeen étendre le mouvement IJAD parmi les quatre régions du Sénégal. exactement ah bon les départements et les. communes et les communes et les quartiers. ah bon. fu rek parce que IJAD on peut dire que ne ralliement là ok waaw ralliement la pourquoi parce que euh, des euh, région boo dem am na coordonnateur régional. région boo dem am na coordonnateur régional. am na coordonnateur régional. prenons exemple de de Dakar. de Dakar oui mhm. wax balaa moo neex nga wax fi nga xamee. loolu am na. je suis le représentant de la région de Dakar. ok euh, je suis le coordinateur de la région de Dakar USAD Dakar. ok tey ni il y a un coordinateur au niveau des quatre départements à savoir Rufisque Dakar Pikine et aussi Guédiawaye. et les quatre départements département vous n'êtes aussi amené représentant si bien département ah bon voilà parce que am département au niveau de kermassar Massar am nañ euh, du moins euh, représentant au niveau de Kër Massar am représentant aussi si sous commune donc c'est pour te dire que les usages et bi ñu toll mu ngi jël mu ngi jël mu ngi ampleur. voilà ampleur bi muy comme les malheurs à l'entame de mes propos. ok c'est pour la jeunesse. Abdou Sarr est le fondateur de usat le fondateur de Usat, De Usat. Mais Usat il ndaw ñi la yëfu ñëpp la. J'ai l'habitude de le dire. Pour moi, le coordonnateur, répondre au nom de coordonnateur, répondre au nom de, ça n'a pas d'importance. Le plus important, c'est où est-ce que nous voulons amener notre très cher pays. Et que le pays est sur les mains de la jeunesse. Sur les mains de la jeunesse. Pour moi, ci le ndaw ñi la le le le Ok. le pourquoi parce que nous avons am dolé, Nous avons en face avec les réalités mondiales ou pas parce que ndaw moy rew ndaw moy rew gis nga euh, dëkk bu amul jeune bi nga xamanteni ni moom a indil lim soxla day peut-être ndaw bu conscient lay doon. ndaw bu conscient c'est-à-dire. ndaw boo xamante ni xam engagement am détermination. et nous devons former ndaw yi nga xamante ñoo neex Sénégal dans cet angle en ce moment. ah bon waaw. pourquoi parce que. Euh, peut-être amna ay manquement amna ay manquement wa au niveau de la jeunesse mhm. voilà parce que dañuy xool ne léegi Sénégal mhm. la quasi-totalité de la jeunesse sont emportés comme le je l'avais dit l'autre jour par la mondialisation ba nga xamante dañuy faté sen sen racinement sen racinement dañ koy faté dañuy faté sen racinement lan mo indi lolu lan mo indi lolu roy ba roy ba dàq motax soy roy roy lu bax exactement avec le développement de l'internet tayji da tout ce qui se passe au niveau extérieur ou bien tout ce qui se passe euh, autre part avant muy def 30 secondes ce sera partagé un peu partout dans le monde Ce nga gis ko foog ne li lu baax la ba racinement alors que nous ñun dans un pays de culture Sénégal lañ avons des am ay fondements yu dëgër yo culture la hmm. te culture suñ ko waxé c'est le mode de vie d'une société nan la société bi dundé ñun dañoo am ay fondement am suñuy maam am suñuy papa yoo xamante ne dañoo neex ci benn lancé boo xam ne ci lañu ñu nekkoon donc bu ñu demee ba communication avancée ba internet avancé ba nga xamante ne ñu gis li xew extérieur par exemple tey jii sa papa yoon la mënoo nga bañ wala nga dem ba mu yàgg nga ne bëggatuma def li du ma ko def kenn mënu ci dara loolu neexul suñu base on doit reformer la jeunesse sur sur tous les angles. donc on a copié mais on a copié mal. On a mal copié. On a mal copié. Merci beaucoup, merci beaucoup. Kokoum le coordinateur régional de Dakar du mouvement IJAD. rappelons le serveur vocal B 77 396 56 27. 77 396 56 27. Et nous avons aussi auditeurs qui ont vraiment hmm, partout à travers les 14 régions du Sénégal. Mambin Tundiaye, Sacré-Cœur, 3 nous avons baha baha baha baha baha. Alcieni Kassor, nous avons connu Omar Diouf depuis euh, Wokam, nous Gorfay, nous Diop ñoom Paul Ndour ñoom Ali Sène ñoom Abdou Sarr ñu ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di nuyu aussi vraiment ñëpp ñi nga xamante ñi ngi ñuy bàyyi xel partout à travers vraiment notre cher pays waa Ñaartali aussi ñu leen di nuyu baax ñom euh, ñom Signe Mbacké euh, ñom Modou Ñing ñom Pape ñoom Ousseynou ak ñom Zal gars ñom ñoom Issa gars yëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax a vraiment kon kon ki Ibrahima Dar su ko Faté en tant que coordinateur régional du Dakar euh, du mouvement IJAD jeunes yi ñëwaat aussi ci li nga xamante ne moom

Ibrahima Dar tant coordinateur régional du Dakar mhm. léegi yéen lan mooy lan mooy lan mooy kii mission mouvement IJAD lan le mouvement politique là, wala social la wala yéen ay activiste ngeen lan ngeen ci doon c'est une question très importante et intéressante parce que boo déggee ñu ne fondé nañ dara il faut ñu xam lan moo ko waral ak fu jëm donc tey jii répondre à la question à savoir usaat fan la jëm ak lan mooy exactement serait un très grand plaisir pourquoi parce que usaat est une union qui est apolitique apolitique apolitique donc on ne fait pas de la politique on ne fait pas de la politique amul fii laa bokk wala fee la bokk parce que boy xol yonent bi wax na ko far far aayut far farloo moo Ay far lo mo Ay way far ay far aayul ku neex am nga fo far way far lo moy indi yenn yi te far lo mo neex li nga xamne mom mo am ci politique bi. même si tout le monde est en train de faire de la politique parce que faire de la politique c'est essayer de bien gérer la société la cité. c'est le sens propre. exactement de la politique. exactement mais comme ça se passe au Sénégal. te boy xol sank rek on l'a dit. Mhm. voilà donc j'étais dans dans une séminaire bo xamante on l'a dit sank rek ce matin. sank ce matin voilà donc nee nañ li nga xamante ne ni moom mooy politique booy xool sax suñu maam yu njëkk ya même yonent yi ce qu'il faisait c'était de la politique pourquoi parce que il essayait de bien mener la la cité te képp koo xamante ne yaay teg sa loxo wala nga teg sa làmmiñ wala nga teg sa bët li nga xamante ni moom mooy avancer loo ce qui est la cité tu es en train de faire que tu le veuilles ou pas la politique voilà mais nag usa est purement apolitique par rapport à la politique actuelle ah bon farfarloo farfarloo farfarloowul UJAT est là pour faire avancer la jeunesse et essayer pour appliquer ou bien pour appuyer le bien-être de notre très seul pays qui est le Sénégal. Ah Mais est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que aussi je peux être un, bon, un membre de, un membre de, et du mouvement UJAT et en tant que, en même temps politicien? bien sûr ah bien sûr on peut être bon une fois qu'on est à UJAT mhm. dañuy jël politique ñu côté et faire avancer ce qui est la jeunesse et le Sénégal sans farfarlo. sans farfarlo. mais est ce que lolo lolo lolo parce que aussi euh, est ce que de fusion ou pas. non ce qui est ce qui est Usat. Mhm. parce que bu nekkee une fois nga nekk euh, membre UJAP. Mhm. da ngay jàppal li nga xamante ni mooy ndaw mi xaaroo si état faroo fii faroo fee parce que tous tous les membres yi nga xamante ni ñu ngi usat man mbokk xaw ma fan lañ bokk te lijjanti wu ma ko quand on est à Usat. quand on est à Usat. waaw donc on porte la casquette dans de l'Union des jeunes avisés pour, le, développement. Et le développement amul le développement pacifien ou développement apérien. C'est le développement du Sénégal. Voilà. OK. mais est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que Lolo aussi d'une part aussi du am conviction comme euh, comme une personne à double casquette et qui, structure bi qui a maintenir peut-être comme le mouvement IJAD et la politique mu donne deux choses qui xamante ne peut-être c'est deux choses parallèles qui ont maintenu Mm, peut-être il euh, ils, visent la même, mm, la même vocation ou bien même les mêmes ambitions. D'accord. On peut dire que, comme je te l'ai dit à l'entame de mes propos, Manela, mm. carrément tout le monde est en train, qu'il le veuille ou pas, de faire de la politique. Tout le monde, sans exception. Bon, à moins que, que tu es un déviant ou bien un marginal. Mais ce n'est que tu, euh, tu es en train de faire de très bonnes choses pour la bonne marche de la cité, tu es en train de faire de la politique maintenant politique nga xamante ne defu waral ñu ne politique. c'est la politique actuelle politique par parloo la politique politicienne. exactement politique par parloo bi te maintenant moo tax sànq booy xool wax la koy wax il est en tout cas l'heure de la jeunesse et il est temps que ñu conscientiser ñi nga xamante wax leen heure bi euh, conscience. heure bi pourquoi pourquoi vous dites que heure bi parce que booy xool au début. Mhm boo amee par exemple vingt ans ba trente ans tu as peur de faire de la politique tey jii nii man ñi may fréquenté ñoom ku je si waxal balaa maa daaneel daf may naan j'ai trente cinq ans j'ai trente sept ans j'ai trente neuf ans j'ai quarante ans yaa ngi mhm. donc même dans les lois au Sénégal. Mhm. pour être président il faut avoir minimum 35 ans. trente ans n'est-ce pas pourquoi pas ñu réduire ko yóbbu ko vingt cinq ans. pour pour permettre la jeunesse de s'imposer pourquoi pas. l'heure de la jeunesse a sonné je l'ai dit et je continuerai à le répéter. Et ça, ça, aussi, est-ce que ce n'est pas synonyme d'insulte des esprits des anciens qui étaient là en disant que l'heure de la jeunesse a sonné et pour, pour en déduire tout simplement que est-ce que qui ce que li nga est-ce que dafa baaxul wala bug et vous raisonnez comme si que qui c'est la jeunesse qui est beaucoup plus efficace si on fait face vraiment aux réalités du monde d'accord bon du ma ko jëlee angle boobu tu sais pourquoi. Uh-huh. parce que chaque chose a son temps. parce que. ah mais je peux je peux dire que ne. ah mais pendant ah. leur temps. Uh-huh. peut-être am na loo xamante ni yéexoon na sooxe woon na. muy lan parce que euh, booy xool bu njëkk. Uh-huh. pour que ñu dugal la école au Sénégal dañuy xaar ba mu am sept ans wala nga am sept ans ñu naan nañ ko dugal euh, comment dire si euh, jardin bàyyi ko mu gën a ñor xaar 8 ans 9 ans nga doo koo bàyyi mu dem CI donc bala ngay motal li nga nga motal pour un président wala pour prendre tes responsabilités day fekk l'âge avancé na ce pas maintenant dañuy y ko am 4 ans il y ko une petite section petite section bu y am 5 ans 6 ans day fekk mu ngi 5e wala 4e okay. bu ko yàlla dimbalee mu am xel bu sell tuuti Il muy am 20 ans day il a il a presque parfait sa vie donc les temps ont changé Il a amul lenn lu ñeent si balaamee mais juste pour te dire que chaque chose à son temps période biñ ñu dafa tomber période bi nga xam mais prenons l'exemple te bu njëkk mam yu njëkk yi dañ doon dund 195 ans 199 ans 210 ans pour pour l'instant l'espérance de vie ne dépasse pas 80 80 années donc tey jii si tu ne réalises pas ce que tu veux réaliser avant tes 60 ans est-ce que tu nga am temps après réaliser ko léegi pour nga un vieux qui a vécu 80 années c'est tous les problèmes du monde n'est-ce pas les xalé yi donc ñoy dem à l'âge de 50 ans dem nañ 60 ans dem nañ 60 est-ce que nekul espérance de vie bi ni mi wañé ko moy waral xel yi sel yi di gëna di à base à 4 ah. ans à 5 ans boy mu na commencer di def lo xamanteni les xalé bu ndaw ngay gis mu commencer di def yenn yo ce sont des excès pour voir et l'autre non c'est à appuyer donc gis nga bu temps changer hmm. il faut essayer de changer avec le temps d'accord et une fois qu'on essaie de changer avec le temps, on va essayer aussi de modifier certaines, certaines règles qui sont en disposition. C'est-à-dire essayer de rationaliser. Exactement. Quoi. exactement. Euh, on va essayer de renégocier, <laughs> on va essayer de renégocier avec, les contrats qui sont en disposition. Maintenant, je pense qu'il est temps mhm. de faire euh, relecture mhm. les règles et les lois qui sont en disposition commencé au niveau du gouvernement euh, l'insertion de la jeunesse sera très facile. l'insertion de la jeunesse. dans la fonction publique. Exactement. Ah bon Ils ont fait, ils ont fait un Mais est-ce que, Mais est que imaginez-vous que, imaginez que aussi vraiment, mhm. est-ce que vraiment à l'heure où nous sommes là, est-ce que ça sera et, facile euh, d'insérer vraiment la jeunesse en tant que, euh, sinon même dans la fonction publique. Parce que aussi, bon, euh, comme nous aussi, nous aussi, il est temps qu'on soit conscient à ce que mhm. nous, nous sommes, nous sommes, nous sommes partis de l'État. Mhm. Et nous ne devons pas, devons pas vraiment et viser, sinon même attendre bon, l'État, en quelque sorte, de, du développement, sinon, est vraiment de Parce que, bon, euh, si nous exemple, à savoir le mouvement IJAD, mhm. nous avons ni ñoom réflexion bi nga xamante ne moom ci moom ci départir d'abord ndax avons ngeen naa mhm. et pour créer bon qui benn ki affaire bu neuf c'est parallèle mais ça répond au même nom Mm-hmm. Parce que, bon, euh, vous, aurez la même destination. Mm-hmm. C'est le développement, c'est le développement. Mm-hmm. Donc, est-ce qu'il n'est pas temps aussi, euh, en tant que jeune, en tant que jeune aussi, il peut aussi vraiment dire, mel focaliser wala que ça soit état ou quoi que ce soit. neex pour tu sais pourquoi. parce que l'État ne peut pas tout faire. la première question en ce qui concerne qui est l'État, la réponse est la suivante. L'État, c'est le peuple. Mhm. Maintenant, qui est le peuple Le peuple, c'est la population. Et une fois qu'on parle de la population, personne, qui est un citoyen sénégalais, quand on parle de la population sénégalaise, tu en fais partie. Donc, est-ce qu'on doit continuer à attendre l'État Non, non. L'État ah nga état mënul jóg ñëw def mais la jeunesse doit s'engager waaye tamit comme li wax rek. Mhm. nga jeunesse bu engagé wu mag ñu dal ñoo di wan ok former waat jeunesse et je l'ai dit l'autre jour la formation se commence à la maison. à la maison donc doog a génn si biti dellu si waat biir gi. Parce que en ce moment où l'on parle, je ne sais pas, si je suis en train d'écouter, d'être écouté par combien de personnes Peut-être 1000, peut-être 2000, peut-être 3000 personnes. Donc, les meilleurs, je suis si cœur. Peut-être que je suis papa, je suis fait un dom. Donc, les meilleurs, vous dougez, vous avez fait effet positif au lieu de faire effet négatif. N'est-ce pas donc il des gens yoo xamante ne ni peut des jeunes yoo xam ne dañuy toog liñ jëlee seen kër pousser leen à ce ñu toog devant le public di wax loo xamante ne mun na conduire ba que tey jii influence dafa garaaw je l'ai loo toujours influence dafa doy war am na koo xamante ni Ibrahima Dar lay déglu te daf koo bëgg lépp lu Ibrahima Dar def wala mu wax ko wala mu def ko il va le imaginel ma wax loo xamante ne wala ma def loo xamante ni suñ kër laa ko jëlee te négatif xale bu ndaw bu ko dégloo bu paree rek ci papaam la jëm te loolu la koy waxee te bu génnee si mbedd bi day foog ne loolu mooy dëgg te loolu lay wax donc formons les les jeunes mais à base formons les enfants pour qu'ils deviennent de très bons jeunes Merci beaucoup. Merci beaucoup, Kokumomo Ibrahim Adar, tant que coordinateur régional du mouvement Jadifi au niveau régional, c'est-à-dire à la capitale Dakar, Dakar Ndiaye, capitale sénégalaise. Comme nous rappeler, serveur vocal, bien peut-être que vous avez participé à l'émission, vous avez partagé avec nous à la fois vraiment des infos. Vous avez 77 396 56 27 77 396 56 27. Nous demandons à HLM vraiment di nuyu gaa yëpp nga xamante ñuy foofu ñoom Bamba Diop vraiment ñu ngi koy nuyu baax ñoom Baye Sall ñoom Mouhamed ñoom Anta Sey madame Diop et ñoom Awa ñoom Jibi Boutique ñoom euh, Ibrahima ñoom euh, kii Ibrahima au carré ah waaw ak ñoom Diouf gaa yëpp vraiment ñu ngi leen di nuyu baax baax baax baax baax sama pël yi yëpp aussi ñoom tonton Ndiaye ñoom Mamadou ñoom Moussa gaa yëpp vraiment ñu ngi leen di nuyu baax di leen bàyyi xel bu baax a baax a baax a dem boo ñaani tukulóor aussi di nuyu ñoom Pape ñoom Cheikh Seck ñoom Saliou Ndiaye ñoom eh, Issa Sène ñoom Bilane Sène ñoom Modou Faye ñoom Arjuma Dione eh, ñoom baa Diouf gaa yëpp vraiment ñoom Abou Diouf gaa yëpp ñu ngi di nuyu dem bokk aussi di nuyu ñoom Ibou Diouf eh, Ibou Ndiaye ñoom Gilbert Ndour ak ñoom Abou Faye ñoom Bama Ndiaye gaa yëpp ñoom. Eh, ibu Ibu Ibu Ndiaye aussi nga yeb vraiment ñu ngi leen di nuyu ñoom Ba Ndiaye gaa yëpp vraiment ñoom Pape Sène ñu kenn ñom Cheikh Fall ga yeb vraiment ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax ba kon euh, Ibrahima dal su ko aussi ñu ñëwaat di rappelé wa serveur vocal bi 77 396 56 27 77 396 56 27 dembo bo aussi fofu di nuyu Mbaye ñom bilanse Bilane Thiaré gars yëpp vraiment ñoom Abdou Sarr ñoom am seen gars yëpp ñu ngi leen di baax ñoom Cheikh Ndiaye ñoom Aliou Ndiaye ñoom Pape Diouf gars yëpp ñu ngi leen di nuyu baax a baax a baax vraiment bàyyiwuñu kenn comme euh, kon euh, ki Ibrahima daal su ko defaatee ñu ñëwaat vraiment. li tubaab di naan revenons à nos moutons donc euh, yéen en tant que du en tant que mouvement IJAD yan activité ngeen di mener. waaw loolu booy xool sànq lay naan IJAD est purement apolitique. Mhm. mais il y a aussi des objectifs. Des objectifs, sont de promouvoir un développement durable et viable au niveau communal et, particulier, euh, particulièrement au niveau national. Voilà. Maintenant, nous tournons autour de, autour de, on peut dire, trois axes. L'éducation, mhm. l'agriculture et l'environnement. au niveau, au niveau éducatif Au niveau éducatif, nous organisons des journées, des journées gratuites en formation. En nous essayons de former, de former les jeunes. Par exemple, sur la prise de parole en public. Voilà, nous essayons de former les jeunes sur la prise de parole en public, sur le développement personnel, sur le leadership et sur pas mal de choses. Nous sommes en train de réfléchir là-dessus. Ah bon Voilà. Mais vous le, vous le, faites gratuitement Exactement. Ah bon Nous le faisons gratuitement. Est-ce qu'il y a une dame qui soutenir ou pas Nous le faisons. Pousser, voilà? Nous n'avons pas d'appui. Ah bon Nous le faisons avec nos propres moyens. Ah, ni, mais ni, mais ni, mais yéni, yéni, ni yéni, yéni, sénégalais waaw mais ah. loolu c'est normal. ah en tant que jeune en tant que jeune nga gis ni nga xamante ne peut-être tey suñu amee seen xaalis ñu ngi dawal defar jënd 4x4 takk jabar bu rafet wala defar ah jënd kër gu rafet yéen ngeen am seen xaalis di ko investir pour vraiment ser kii euh, euh, mën servir la population. exactement wala boog di war bon le bien-être de la population. Mm-hmm. ah bon. exactement yéen ci loolu ngeen di yëngu. exactement. ah yéen yéen vous êtes. différents nous en tout cas ah de former pour le pour le bon fonctionnement comme je te pour le bon fonctionnement du Sénégal voilà parce que tey un jeune formé peut apporter beaucoup de choses pour son pays voilà parce que tey j'ai l'habitude de le dire des fois on fait face à des à des sociétés défaillantes c'est dû à quoi c'est dû à, à la malformation des jeunes. ah bon parce que tey jii boo mhm. jeune bon amul formation je l'ai dit tantôt ce matin mun nga dajeeg ñu bëri ñoo xam ne jàng nañ mais koo si laaj loo mën xamu ko. lan nga mën dajale amul spécialité bu émission bi jeexee. Mhm. wàccal si suuf nga taxaw si buntu rajo bi. Mhm. nga xaar dix jeunes yu la romb koo si laaj dan nga mën na la ne lii laa jàng waaye loo mën du la tontu. même am mën na am masse nangam waaye du mën dara. exactement nous devons revoir. Mhm. les méthodes d'enseignement. Donc, ci l'eau, une yéen, vraiment pour eh, organiser des formations pratiques gratuites yo xamante tay soko soo da ngay booster xaliss bu bëri pour mën pour pour mën cee bénéficier wu yéen ngeen koy may gratuitement en tant que jeune nous ne le faisons seulement pas dans une région nous le faisons dans toutes les régions du Sénégal dans les 14 régions du Sénégal yëpp da ngeen fay dem pour pour may fofu ki na ay formation bien sûr mais est-ce que yéen est-ce que vous méritez à ce que vraiment état ngeen tok ak mom waxtan ak mom mu gis li ngeen di def pour vraiment mu mën ci japp ndax lolu noonu aussi yakarna naa euh di ci bax wala euh, D'accord. soxla wu leen loolu. en tant que porteur de parole. Mhm. monsieur mhm. je te demande est ce que nous méritons à ce que l'État euh, nous soutienne. je te repose la question par rapport à ce que nous sommes en train de faire pour le bon fonctionnement du pays est ce que nous méritons le soutien de l'État ah vraiment ah pour vraiment vous le méritez. exactement ñaanuñ kenn waaye ku ñu may ñu ok merci beaucoup merci beaucoup pour comment mooy monsieur Ibrahima Dara coordinateur régional de Dakar et vraiment mon lañ dalal finité sur Safina FM sur les ondes YouTube émission de mon fay daw bu sommes aussi Demba Wakam di aussi Khadim Sena c'était notre invité du samedi passé vraiment et nous avons fi le lu dal xel lu leer nañ ñu ngi koy aussi ak madame Sen vraiment ñu ngi leen di nuyu bu baax Khadim ñu ngi lay nuyu bu depuis Wakam ak collègues yi nga xamante vraiment ñoom Khadim Tine ñoom Issa Tine ñoom Ndiogu ak ñoom Moustapha Bass ñoom Sëñ Modou ga yëpp vraiment ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax ñoom Jibi Sène gars yëpp ñoom Pape Ndiolé ñoom Modou Modou Modou Diouf depuis Ndondolan gars yi aussi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax ñoom Mbaye Ndac seen ñoom Samba Dione ñoom euh, ñom Serigne John aussi ñu ngi leen di nuyu bu baax vraiment koku aussi eh, ñu ngi koy nuyu bu baax ñom gor gui fay gaay yépp vraiment ñu leen di nuyu bu baax a baax baax kon su ko defee ñu rappelwaate serveur vocal bi 77 396 56 27 77 396 56 27 kon kep nga xamante ne bu nga partager ak ñun à la fois émission bi mën nga woti ci 77 396 56 27 wala nga dem sur les ondes de YouTube fofu non aussi émission bi mu fay dox eh, mu ah, à l'heure où nga xamante ni ñu ngi koy ñu ngi koy waxtaanee nii nii ni ku fa dem aussi nga seetaan ñu à direct kon su ko defee Ibrahima eh, dañuy ñëwaat aussi ci li nga xamante ni rek moom mooy ci ni question yi kon yéen eh, vraiment di ngeen di def to yàlla tax ngeen di def ki ne gratuitement mm-hmm. eh, mais léegi léegi léegi léegi yéen. comme yéen comme yéen ken soutenir leen. Mm-hmm. te to a ngi def eh, lu mel mm-hmm. euh lolu ci yéen ci góor yi rek ngeen yem wala boog ni ngeen di wala jigen ni am nañ ci am nañ ci wal góor ni jigen ni ak jigen on parle de toute la jeunesse. ah bon exactement sans distinction de race ni de classe. léegi genre de formation ngeen di defal eh, ki jigen ni Bon, il y a la formation. Des fois, on organise des formations sur la transformation des produits. Par exemple, Tadjini, ñu ñëw wax la nan ñuy defaree jus et tout formé la si ba nga xamante ni demee tu seras en mesure de yow ci sa bopp ku jigéen ki defar sa jus mun koo jaayal sa bopp am dara. ah bon et on se limite seulement pas à ça dañuy euh, former ji nga xamante ni ñoom ñooy jigéen ñi si nga xamante nan transformer les savons bu la eau et tout tey jii nii imaginons tu entres dans une maison nga fekk fa kenn ku jigéen koo xamante ne mu ngi fa yaayam papaam ak kenn ku góor léegi kenn ku góor ki di dem di def chaque jour nga jël ko jigéen gi formé ko en ce qui concerne transformation comme li ma lay wax ni eau de javel saabu heure bu xëyee balaa moo def liggéeyu kër gi mu def transformation bi teg ko si kër gi ku góor ki bu nekkoon heure bu xëyee 1000 francs lay def si kër gi di nga gis ne téeméer lay bu di def parce que téeméer bi di des formation bi nga xam ne jàppale nañ si ku jigéen kooku noonu ça va l'aider à ce que au moins mu fay am benn téeméer boo xam ne dina ko dolli si biir kër gi te nous sommes au Sénégal kenn ku nekk bu si jàppee da ngay gis ne doo yomb muy le Sénégal muy autre part da ngay gis ne bu ñëw ku neex tibbee def dara mooy génn yomb kenn bugg a tibb lépp def ko voilà donc nous sommes dans cette optique kon yéen kon yéen kon yéen man ngeen man nañ wax ne yeen daal da ngeen a pour vraiment dam jàppale mhm. njaboot yi ak ñi nga xamante seen loxo jotu seen gannaaw mhm. ndax c'est yi ndax ndaxte Sénégal soko setlo mu doon benn dëkk bi nga xamante et vraiment pour nga mëntal ñetti pendandaan yi rek mhm. c'est c'est tout un problème ngeen ñew aussi dugal seen loxo ci biir famille yi à ce que aussi loolu noonu mën doon li nga xamante peut-être et eh, dina eh, wàññi dépense ci ci lu bëri bëri bëri eh, suñu sukkandikoo ci ni nga xamante ne noonu nga ko waxee su demee noonu vraiment gis nañ ni loolu nonu et na lo xamantene xam population bi dinañ ko soxla. Mhm. to yaakar naa ni lolu aussi su le lo xamantene eh, peut-être ki tasara ngeen ko. Mhm. et eh, na monna na na def lu bari vraiment eh, peut-être ni aussi dinañ ci gis mon ci gis mhm. l'exemple bi nga xamantene mom nga wax de javel nga le produit il est utile vraiment surtout dans les ménages nga aussi sabu nga xamantene aussi tous xam nga so buggee sangu so buggee raxa so buggee foot yooyu yep don nga xamantene tay vraiment en tout cas c'est nécessaire nit ki aussi suy dund aussi di koy soxla yooyu yëpp vraiment ngeen ngeen di ko jàppale askan bi mm-hmm. eh, ci li nga xamante ne laajul dara wala di dara pendant les formations est ce que dara laaj juste on demande l'adhésion aux membres des fois on voit des cartes avec une somme symbolique de maximum 1000 francs ça dépend de la situation situation kii bi ki nga bëgg adhérer des fois on vend les cartes à 1000 francs pour l'adhésion. adhésion 1000 francs rek nga def formation maximum <laughs> 1000 ah francs pour juste couvrir certains besoins. Voilà, c'est juste une somme symbolique pour juste couvrir certains besoins. mais vous, mais mais mais normalement ne état war au niveau du ministère à ce que vous eh, des financements yi aussi vous bénéficier vous wala waaw bon peut-être doxaguñ ci loolu pour l'instant mais Abdou Sarr peut-être mu si réfléchir bu baax a baax parce que il est le coordonnateur il est notre coordonnateur national. il est il est en train il est en train d'étudier toutes les options à ce que UJAT euh, soit bien. donc côté googu noonu moom moom moom aussi gën a mun a jox ay yu mais pour l'instant depuis que je me suis engagé avec jusqu'à aujourd'hui, mhm. on est en train de faire avec nos propres moyens voilà il paraît que tu es, tey il y a une formation. au niveau au niveau de la mairie des Parcelles de la ngeen koy may a gratuitement. exactement une formation de prise de parole en public leadership et développement personnel. et développement personnel cette formation est en cours elle devrait terminer à 17h. c'est de 9h à 17h. C'est de 9h à 17h. voilà, avec la remise des attestations et tout. Et ce sont des formations extraordinaires. Donc, des formations qui aident la jeunesse. Donc, qui s'est certifié à des attestations reconnues. Reconnues, exactement. Parce que aussi, euh, euh, je le dis, hein, je le dis, et j'ai l'habitude de le dire. vouloir booster, seulement ne suffit pas. Ah Nous voulons booster la jeunesse, et je l'ai dit. Mais Sénégal, il faut dafa xawa doy comme. Parce que je l'ai dit tout de suite. Conscientiser ou jeunes yi ni conscientiser et aussi j'insiste trop sur la formation des jeunes. C'est la formation des jeunes. Sénégal fait partie des sociétés défaillantes. D'accord. Ça, je le confirme. Pourquoi Parce qu'un jour, j'ai lu un auteur. Mm-hmm. On lui a posé la question à savoir c'est quoi une société défaillante. Et il a répondu ceci. Mm-hmm. Il a dit que dans les sociétés défaillantes, il y a mille sauts pour chaque esprit éclairé et mille paroles grossières pour chaque mot conscient la majorité reste toujours ignorante et l'homme raisonnable est constamment vaincu. Il ajoute ceci, si vous voyez des sujets futiles dominer les discussions dans une société et les sots occuper le devant de la scène, alors vous êtes en présence d'une société très défaillante. Et il donne un exemple en disant ceci, mmh, les chansons et les paroles vides de sens trouvent des millions de gens pour danser et les répéter. Et le centre devient célèbre, connu et aimé au point que les gens prennent son avis sur les questions de la société. Quant aux personnes importantes, on ne les connaît pas et personne ne leur accorde de valeur ou de poids. La plupart des gens aiment la futilité et l'anesthésie. Et tout ce qu'il vient de dire là mhm. est noté au niveau du Sénégal. donc vous peut avec la société actuelle du Sénégal avec euh, la société sénégalaise une société défaillante donc nous devons euh, li li li li li li Al Maktoum di wax comme de l'habitude comme en tout cas je l'entends mhm. d'habitude dire Maxime Kafani mhm. mon très cher Maxime Kafani mhm. qui est un grand frère et tout je le salue de passage kooku il est spécial pour moi nee na Al Maktoum nee na dañoo war a def ndëpp national <laughs> ndëpp national <laughs> raxasaat xel yi raxasat xel yi fii nii ci Sénégal parce que euh, cette fois-ci yow lay waxat nga confirmer ma wala nga wala nga infirmer ma ah bon waaw parce que tey jii nii nga ce sont des personnes importantes ils sont rarement invités ou bien même s'ils sont invités kenn du leen déglu mm-hmm. mais invité ki nga xamante ni. mais imaginez ay caaxaan nga lu fi yem ni Sénégal nga invité nit mu ñëw toog plateau monsieur Gay. <laughs> nga ne ko waxal ak population mu ne la Cor, ay koor <laughs> nga kontaan nga xëy ñëpp répété ko mm-hmm. koor way koor Louis Cor. Il est invité. On lui pose des questions sur la société sénégalaise. nan nga gis ci àddina bi koo xamante amul lu jàkkaarloo devant le public waxu la dara lu dul koor luy koor ay koor ne day wéy on lui accorde beaucoup d'importance. alors que il y a un certain Maxime Kafeni boo xamante ni il est extraordinaire. bu la joxee tey jii point de vue am par rapport à la société mun nga see tiire xam-xam. doo ko invité wala boo invité kenn du ko déglu kenn du ko seetaan te bu xëyee buñ la laajee lan la waxoon kenn xamu donc, dans ce cas, mhm. nous pouvons bel et bien dire, mhm. oui ou non, que nous sommes dans une société défaillante ou pas. Oui, c'est ça. L'auditeur, il a quoi <laughs> Ibrahima auditeurs yi laay bàyyi yow <laughs> kon Ibrahima vraiment vraiment vraiment ñu ngi ñu ngi content bu baax a baax di rappelé waat aussi serveur vocal yi di nuyu gars yi nga xamante ñu ñu ngi xel partout à travers notre cher euh, pays vraiment di leen nuyu bu baax a baax a baax di naan rek euh, c' est leur présence qui fait vraiment notre raison d' être kon su ko defee ñun itam vraiment tout temps di leen di safa di leen ndamoo di leen jaajëfal saa su ne di leen remercier aussi ci seen euh, ci seen appui ak aussi vraiment ni nga xamante ni noonu la ñu jàppee donc su ko defee ñu rappelé waat serveur vocal et 77 396 56 27 77 396 56 27 Ibrahim Ibrahima Dar su ko coordinateur. Mhm. régional de Dakar. les qui qui laajaat encore ci li nga xamante ne moom jëm ci le mouvement IJAD comme euh, le mouvement dafay dafay dox ci volet éducatif volet environnemental et volet kii agricole ci volet agricole bi lu ngeen di def. bon on organise euh, par exemple tey jii nii. ci volet agricole bi. bon je je je salue de passage notre très cher euh, président de la République. ok monsieur Diomaye Faye parce que lors de son intervention euh, la semaine passée, il mmh. a mm. insisté trop sur l'agriculture. Sur l'agriculture. Voilà, donc c'est quelque chose à saluer. Okay. Mais instant, nous organiser des activités en ce qui concerne l'agriculture. Par exemple, nous avons un espace, nous avons accompagné à ce que nous avons euh, li nga xam ne moom mooy bi nga xam ne moom mooy moom semence bi ñu mun koo euh, ji ba nga xamante ne dinañ ci mën a jëriñu jëriñ ci ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen leur apprendre comment nan la ñuy jiwee ban graine moo baax nan lañ koy defee nan ngay def pour génn si nan ngay def nan ngay def nan ngay def pour juste appuyer ñi nga xamante ne si côté googu lañ nekk et je l'ai dit l'autre jour ah. voilà donc ñun booy xool ñu si trois points éducatif environnement et. li nga xamante ne mooy agriculture. Mhm. pourquoi parce que. Mhm. je l'avais dit. Mhm. tout le monde ne peut pas être partout en même donc ne peut pas être euh, en un point en même temps ñëpp mënuñoo nekk fenn. il faut que ñuy def lii ñuy def lii ñuy def lii ñuy def lii te nag boo nee man euh, dama bëgg Sénégal avancé nga bëgg a jàppale ñi nga xam ne dañoo jàng kese ñi jàngul da leen di lor moo ñu jël ko orienté ko sur trois sur trois angles ku mënul def lii di nga mën a def lii ku mënul def lii di nga mën def lii voilà da ngay gis ne tey jii nii Sénégal bëri na ay jeunes mais jeunes yu si bëri ñu ngi jël quoi la Méditerranée pour essayer de rallier l'Europe muy loo xamante ne dama koy déplorer mu métti ma trop mais voilà voilà voilà à cet aspect les jeunes yi ont été leur vie vraiment euh, dans l'océan Atlantique mm. est ce qu'il y a des tam jeune wala voilà solution à ce que nous ñu de a sédentaliser ci localité D'accord, nous avons des idées par rapport à cela. Mais en ce qui concerne les solutions, c'est mm-hmm. à l'État de les prendre. Ah Parce que c'est la jeunesse. Parce que moi, personnellement, j'ai l'habitude de le dire. Mm-hmm. Parce que euh, la jeunesse, des fois, Peut-être que la formation manque, peut-être que les moyens manquent, mais la jeunesse, on peut dire que nous avons une jeunesse désespérée. Une jeunesse désespérée. Des ah fois, c'est ce qui conduit à, à, à prendre l'océan pour essayer de rallier un autre pays pour avoir un, en tout cas, une meilleure vie. le ah monde Pourquoi Je profite de l'occasion hein, pour mm. demander solennellement, avec beaucoup de respect, à l'État du Sénégal, bu baax ñi nga j'insiste là-dessus. càq càq waaw parce que léegi même ñu nekkul càq càq. lu tax dañuy fu ñu génn moto policiers yi jàpp leen wala gendarme yi jàpp leen dañuy góorlu moto yi comme ñuy góorlu bal. boo ah ñëwee exactement li ma lay wax ni je suis en suis témoin oculaire voilà dañ leen di jàpp comme pas possible. lu tax di leen di leen tere liggéey da ngay gis ne dañuy wëri di wëri di teggi di teggi papier ñoo wala peut-être que c'est un problème de papier mais da ngay xool dafa yàgg. bu nekkee problème papier yi na leen wax li ñu war a ut exactement wax leen fi ñu koy utijee ñu utiji ko te ñu bàyyi leen ñu liggéey gi nga jeunesse bu ñu liggéeyul boo xëyee ñu jàpp sa mëta nga xëyaat ñu jàpp sa mëta loo am nga dem def ko si récupéré ko gannaaw suba doo xëy boo xëyul xëyaatoo doo xëy jàkkaarloog paa bi xëy jàkkaarloog maire bi trois jours lekku leen naanu leen boo gisee yoonu géej bi da nga koy jël on se dit la vérité mais est-ce que est vous en tant que en tant que en tant que acteur de développement sinon on agent on agent de développement et tout tout yéen comme gars yooyu nga xamante ñu ngi aussi li nga aussi océan bi ngeen conscientiser à ce que aussi xamal budget colossal bi nga xamantene mom lañuy jëlé pour vraiment euh, def ko ci wala boog dépenser ko ci li nga xamante ne moom mooy la Méditerranée mhm. et suñ ko jëlone aussi est-ce que ñom ci seen bop mën nañ ci def dara ba nga xamante aussi vraiment dinañ mëna a euh, dinañ mëna gis seen bop loolu tamit c'est ça peut être une solution leur conscientiser sur la somme qu'ils qu'ils en tout cas qu'il investisse pour pour pour pour rejoindre euh, l'autre bout du monde okay voilà peut-être bu ñu jëloon tey ji benn 400000 wala on ne sait pas 300000 je ne sais pas voilà jël ko investir ko ci lenn peut-être dina dem peut-être du dem mais toll nañ ci moment bi nga xamante ni moment bo xamante ñom peut-être désespéré nañ ba japp nañ ne fi mënuñu fi am dara sama propos yi mooy ñëwaat gis nga ndaw bu désespéré ça peut conduire à la dépression. daleen di jaral laala la wax ñu def benn affaire dijjanti dijjanti dajale dajale dajale dajale dajale dajale rek pour pour ñoom nag génn parce que foog nañ ne foofu la gën a doxee alors que ne mun na doxee fu nekk mais dañuy dem ba dañuy désespéré et pour cela état dafa war a bàyyi xel ñëpp je l'ai dit l'autre jour du marchand ambulant bi du kii cag-cag di ki nga xamante ne day yenn du kii du kii du kii comme je l'ai dit ñëpp nañoo nekk fenn ku nekk faaw nga am foo nekk mais boo xoolee ku nekk fi mu nekk nga xool li ko si mën a jàppalee nga jàppalee ko si mu gis si boppam man loolu laay prôné loolu laay demandé xoolal kii si lu nekk kii c'est un journaliste appuyé ko ci côté journalisme bi kii c'est un c'est un chauffeur appuyer sur côté chauffeur yi ku nekk nga xool loo leen di dooleel à ce que ñoom aussi ñu mun a am espérance par rapport à par rapport euh, par rapport à leur pays. ok ok ok merci beaucoup merci beaucoup kooku mooy le coordinateur régional de Dakar Ibrahima Dar et vraiment moom lañ dalal fii nii tey ci Safina FM et émission Takkusaanu Réew bi léegi kon Ibrahima su ñëwaatee ñu bëggaat la laaj sur le volet environnemental lan ngeen di def ci sur le volet environnemental. waaw quand on parle de l'environnement moom on fait allusion à à lépp loo xamante ni day waral euh, dëkk bi naat dëkk bi avancer et tout environnement on organise des journées de reboisement on essaie de former de travailler avec ceux qui sont en tout cas ceux qui ont de l'expérience en nos forêts pour essayer de voir nan la a def ba nga xamante on travaille là-dessus ba nga des fois ça da ngay manquer temps voilà et comme je te l'ai dit en l'entame de mes propos usage est purement apolitique mais tout le monde est en train de faire de la politique que tu le veuilles ou pas mais les manières de faire. Ce sont les, manières, de faire qui diffèrent. Voilà. Ce sont les manières de faire qui diffèrent. Et en ce moment, mhm. la jeunesse doit adopter une politique autrement. En se basant vraiment sur les pistes du mouvement IJAD. Exactement. on a avancé. Ok. Banyuma faire, comme vous te dit mais faire bi dafa metti ba nga xamante ne avancé bi dafa metti ok mais est-ce que yéen est-ce que yéen en tant que en tant que en tant que un agent développeur est-ce que eh, gis ngeen yenn structures yi nga xamante ils vont de la même démarche que le mouvement IJAD bon man mom pour dire la vérité un mouvement apolitique comme UJAD gisuma ko. ah bon D'accord. je n'ai pas vu. tu n'as jamais intégré. bon peut-être les associations les petites associations. au niveau de la de nos localités et tout voilà voilà on était concentré sur euh, sur notre avenir sur les études et tout donc après bi ñu demee ba que xamante ni gis nañ UJAT te gis nañ lancé bi ça rime parfaitement avec li nga xamante ni lañ def on n'a pas hésité une seconde pour s'engager voilà. ok Merci beaucoup, merci beaucoup euh, Ibrahim Dar, tant que coordinateur régional du mouvement. Jade fini ci Dakar, vraiment moom lañ dalal fini ci Safina FM mu donne Ganbu, Ganbu, luxe par remarquable bi nga xamantene tay vraiment mom lañ bëggone partager ak yeen une émission bi nga xamantene on est en train de le faire avec un sujet très très riche à savoir l'IJAD d'un volet indispensable pour le bien-être et de la population et légui kii Ibrahima vraiment xamna né l'émission tire à sa fin et donc dina lay jox rek ki kaddu gi vraiment nga nga nuyu wala nga lancer appel à la jeunesse sénégalaise c'est li nga xamantene vraiment et moom mooy droit wala mm-hmm. boog moom mooy seen cër wala li ñuy ci ñoom ci mm-hmm. Sénégal bi ni en tant que vraiment kii eh, acteur de développement mm-hmm. d'accord lolu mom c'est un grand président d'abord dama lay remercier ah, di remercier képp ko xamanteni aussi yaangi yaangi Safina FM et di remercier aussi ñëpp ñi nga xamanteni ñu ngi déglu euh, euh, émission bi voilà donc di wax né aussi je lance un appel je lance un appel un appel solennel à l'état à ce que nous bàyyi la jeunesse et aussi à ce que l'État mise sur la jeunesse ça c'est un appel c'est un appel qui vient directement du cœur l'État doit miser sur la jeunesse nous suñu ressource ressource potentielle c'est notre jeunesse dans la jeunesse Sénégal vous si mhm. miser mhm. avec euh, nos autres ressources nous avons xamante nous ñu koy gis dangay J'insiste là-dessus. Et c'est un appel, c'est un appel de cœur. L'État doit miser sur la jeunesse et l'État doit aider la jeunesse sur tous les plans, sans distinction de, de, métier, parce qu'il n'y a pas de sous-métier. En dehors de ça, je tenais à remercier euh, mes parents, comme je okay. okay. papa. Ce, matin, ce matin, oh, j'ai discuté avec mon, mon, mon père. Okay. émission, je suis là, comme suis papa. <laughs> voilà. Je suis là, je suis émission. Voilà, je suis là, je suis émission, je suis là, papa suis papa. Je suis nuyu de passage. Sama yaay, toute ma famille, hein, toute ma famille, je salue toute ma famille. Di jaglel nuyo ki nga xamne mom moy Maxime Kanfani. Voilà, Maxime Kafani est très cher pour moi. Di jaglel nuyo madame Sen, mhm. sama waay la Assane Bop depuis la France. Voilà, toute la famille Dranger, Imam Goureup, ma Mbaye sar voilà tout le monde ah tu vois sama wa koñ ñom ñom ñom Modou Modou dal Cheikh Fall mon ami Abdou Mbaye tout le monde voilà di di di lancer aussi di di di nuyu aussi ñepp ñi nga xamantene ni dañuy béggee voilà te comme dañuy wax rek kulim da ngay joom muy mécanicien ñom ñoom Jibi Diagne ñoom ñëpp tey ñu suñu xel voilà parce que comme li may wax Sénégal dafa nekk dëkk bo xamantene ni dëkk bu yaatu la te métier yi bari nañ fi. waaye bu dimanche jotee ba mu nekk jour repos dañuy gis ne ñun ñëppay dajate ñun ñëppay sangu ba seet toog di waxtaan muy mécanicien bi muy menuisier bi muy tôlier bi di ñaanal aussi suñu mbër bi nga xam ne dafa am combat suba muy prince bi nga xam ne ñoo bokk ko yàlla mm-hmm. ki nga xamante ne moom la war a bëreel demee mm-hmm. voilà di jaajafal ñëpp di nuyu ñëpp di sant ñëpp di leen wax ne aussi lépp loo xamante ni lu normal la émission bi rek xam leen ne c'est grâce à Dieu lépp loo xamante ni aussi juum nañ si wala ñu wax si loo xamante ni waruñu koo wax wala manquement ñu xam ne nit laa te nit imparfait il toujours à s'épanouir à à <laughs> merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup Dar et le coordonnateur euh, régional du mois et de la région de Dakar moom lañ FM sur à la même heure à partir de 17h tous les samedis ñu bu aussi auditeurs et auditrices nga di à travers les quatre régions du Sénégal. Sénégal nous nuyu aussi la le technicien qui a xamante mon moom moo jàpp ci liggéey bi bu affaire bi a jotee fu ne vraiment ce que eh, bàyyi vraiment ce ko aussi ñi jaajëfal ñëpp di aussi di à la prochaine avec un autre invité et vraiment avec un autre thème inshallah merci beaucoup à tout le monde et à tous merci.